Ousmane Sonko bëgg naa xam professeur euh, condition yi nii bu ñu ko ci génnee intégration am réintégration am ci jeu bi naka naka la nar a demee maanaam day ñëw rek yomb ci moom ñu ko gëmoon ko ni di ko gëm wala détracteurs yi li ma la doon wax sànq ñi naan euh, dafa négocier entre guillemets parce que xam nañu am na ñuy dox jamono jii nii loolu est-ce que du loolu mbir boo xam tamit mën na mën na mën na ko yàqal. Euh, Ousmane Ousmane Sonko moom. ay <laughs> adversaire bu ñu naan yàlla mu génn no en ndax lan ndax lan ndax lan <laughs> xam naa ni bu génnee fii beneen affaire lay doon non en fait nit da nga koy nangul li ko yàlla jox. Mhm. Ousmane Sonko bu doon négocier ak Macky Sall fa mu méttee lay négocier mënul dem ba fa mu neexee ci moom muy négocier loolu xel ant na ko am na benn moment métti woon na ci moom. ñu koy jaay doole. Mhm. ñu koy brutaliser. ñu ko tëjee dissoudre di ko gendarmerie di def je ne sais pas tu te rappelles ba ko Guy Marius Sagna di ko katamu. Mhm. ñu koy sànni la këram foofu la métti woon foofu mënoon na négocier pour rawale sax bakkanam. il pour sax il ne l'a pas fait nit nag mënoo ko ba muy metti bakkanam xaj ci muy xeex. ba mu toogee toog ci njaganaayam tëdd di nelaw ba yëpp yël lépp fekk si ko muy négocier loolu xel antanu ko. Mhm. xel antanu ko je pense que kii waxoon ni. ñoom moo woote gat sa gatte moo woote cooki fin te dëggati nga état bi di wax naan moo woote woon gat sa gat sa moo woote woon cooki fin dëggati nga ko ci état bi état bi nga dégg mu koy wax noo ginnaaw ay jàmm mhm. ñoom ñoo dóore ñoo fayu ñoo mbëkkee ñoo bëgg a baale état bi la rek et je pense que euh, position bi Ousmane Sonko euh, adopté